asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah vendredi 29 mai 2020 ñoo ak yéen ci yëglikaay yi sunu xëy doore ko tey yëglikaay bi nag tey fa mu xëy ñëw moom dafa xëy ñëw ci ñeenti mbër yoo xam ne daal ni ñu nekke woon ci lamb ji yëglikaay bi sax jàppal lam leen tudde woon moom mooy bat booyu lamb ji ñeenti mbër lañ yoo xam ne daal ku ci nekk moom ba nga cay toll ba ngay wane sa bopp moom sénégalais yi bëggoon nañ la ndax la ko waraloon mooy sa jikko aw ak saw melokaan ci lamb ka ca njiitu mooy zos borom dóor dóoraat borom ñeex man day sowmaan la boo xam ne daal dafa judd rek nekkum sowmaan maanaam ay signature contrat am Zoss da ko daan tàngal bu ñëwee ca làmb ja fecc nu mu ko neexee ba public bi yëpp kontaan yemuñu ca kenn koo xam ne ca ñoom ñeent la bokk di ñaareel ba mooy Balla Diouf moom nag moom léeg-likaay bi jàpp ca moom maanaam mbër woon moo xam ne dëgëraay ga foo ko takk weesu na ko fit woon ak moom fitu gaynde dëgg la yoroon moo tax sax ñu jëloon ko doon ko wooyee cœur de lion maanaam koo xam ne xolu gaynde la yor du sonn moom Balla Diouf ka ko ñetteel mooy Boy mi nga xam ne moom phénomène de l'arène lañ ko doon wooyee moom nag moom ñeme nga itam yeggoon na ci lool waaye bëre ba foo ko takkoon ci xam-xamu bëre rëy na lool lool lool kaleen ñeenteel nag mooy ki nga xam ne borom ragal du jéggiraay lañ ko daan woowe muy bàcc seeraas moom mi nga xam ne tamit moom ci làmb ji jàppal la magicien de l'arène lañ ko daan woowe koo xam ne daal da daan sax luxus ndax façon bëreem daan bëre pour nga gis mbër di ko bëre doyoon na waa trop moo tax yëglikaay bi jàpp ne ñeent ñii dey làmb ji perte na ay bat booyam ki nga xam ne moo di Zos la Balla Juuf la Boy Sey la ak bàcc seeraas yëglikaay bi di suñu làmb xëy tey ñëwal ñu ci ñooñu keneen koo xam ne yëglikaay bi ñëw na ci moom muy koo xam ne moom écrim ko ñàkk waaye daa ni nag taxaw nañu ngir mu des ci làmb ji mu mel ni ki kooku mooy Lac Rose bu Fass yëglikaay bi ne nag saasam bu mu jëngi nii bi yàlla defe moom blessure moom topp nañ ko waa Fass boole kook yoo xam ne daal yu xarañ lañu ñu faj ko ba mu wér ngir mu mën a dikkaat nag décoller maanaam mën a naaw beneen naawin bu bees continuer bu mujj lañu ko jox keneen koo xam ne ni moom nu muy defaat ba naaw jóg taxaw moom la ñu xëy di ko laaj ginnaaw tournoi TFP ba Fallou Ndiaye tëggoon ba mu ca duggee te wanewu fa lu saf suukar wala saf xorom muy mobile bu Grand Yoff moo tax yëglikaay bi ñëw ci ñoom ne te mu nekk nii daal taxawaayam beneen bu bees keneen koo xam ne ni moom xëy na di wax ci taxawaay muy Mbaye Jacques Diop ma nekk ca ministère des sports xam le ne nag Matar Ba moom mbirum Aline Sarr moom ne na décision bi war dina ko ca jël ngir buñ ca yeggee def ca la nga xam ne ni moom la ca war a def Mbaye Jacques moo xëy tey di ci yëglikaay bi nga xam ne nii moom moo di sunu lamb bu nu fa ba tey bu nu desee ci sunu lamb caatu taskatu yaraax yëglikaay bi ñëw na ci moom ci xale la boo xam ne day daa mel ni fi mu nekk nii day ginnaaw ba mu wanee serpent noir la mu ko wan daa mel ku nar a dem la de yëglikaay bi ne sunu lamb xëy ñëw ci moom dama fay jóge wutali record record moom ka xëy dalal du kenn ku booy kay moom wax ngir nga xam ne nii moo di ca record bu nu continuer ba tey fa nga xam ne moo di ca record itam keneen koo xam ne mu ngay wax ci saison bi muy raay ba bu mbuur ñëw na ci Modou Lo Ama Baldé Balla Gaye numéro 2 Bombardier Tapha Tine ak Lac de Guiers 2 ñëw na ca daal jàpp na ne donte saison bi xëy nag jafe-jafe am na ci waaye xalaat na ne ba ñuy jëm daal 2020 jàpp 2021 war naa mën a nekk lu neex lool raay ba moo xëy di wax lool ca journal bi nga xam ne moo di record kenn koo xam ne ni guléet la ñuy wax ci moom muy rëg-rëg bu caaroy koo xam ne daal la ko commencé 2015 ba 2019 daal giseesul fenn foo xam ne def na fa année balance ci lambi simple ji waaye fi mu nekk nii day boo bëggee dëgg-dëgg ren moom du bëre ci lambi simple yëglikaay bi dina ko a xëy ñëw toppal ñu ko ci ab jàngat ñeenti saison yoo xam ne daal wane na ca boppam lu toll ci 58 gala daa mel ni moom mii nga xam ne moo di rëg-rëg wane na ca boppam bu baax a baax yëglikaay bi ñëw ci moom lam jot a gañeek lam ca am ci ay defet koo xam ne moom jot naa bëre taxawee nag jàppal trois finales yoo xam ne daal ñàkk na ko yëglikaay ba ñëw na ci moom maanaam muy ki nga xam ne mooy Ibou Senghor numéro deux ñu naan ko Gane Seck maanaam daal am na lu mu réussir muy 40 pour cent de réussite loolu la ñu yëglikaay bi record xëy tay xamal keneen koo xam ne ni moom xëyaat na fa nga xam ne mooy ca Leewtoo TV muy Lac de Guiers numéro deux nag moom tey mbër la xëy tànc Lac nee ñoom ñëpp ñëpp boo leen boolee yor li ma yor du moroomam maa leen dàq bëri ñoom ñëpp Tapha moom nee na daan ko ak a yomb loolu la Lac de Guiers numéro 2 xëy tey di wax Lac daal tey ngar daa joona fa nga xam ne nii moo di Leewtoo TV waxati fa la ko saf ak la ko neex waaye fii nu nekk moom loo ci mën a dégg ah yàgg maar daa mel ni bakkane na waaye kilim bi bu ñëwee dina baax loolu moom du ci yàq dara yàgg salaamaaleykum mbokki suivi Leewtoo TV ñu leen nuyu bu baax di leen ziar di leen jaajëfal di leen baalu àq te di leen baalu àq ci àjjuma ji di leen ñaanal jàmm ak fu ngeen munti nekk ñu ñëw ak yéen ci seen revue de rek comme ni ñu koy defee chaque jour ñu si ànd ak Babacar ginnaaw bi nga xam ne def na revue bi ñu dem ci jàngat bi Babacar nuyu naa maa ngi lay fay Aïssa mbaa yaa ngi si jàmm yàlla na sant yàgg maa ngi nuyu ti Leewtoo TV yëpp Euh, waaw. waaw dañuy dugg ci li nga xam ne nii mooy euh, waxtaan bi daal di njëkkee ak euh, sunu lamb sunu lamb tey ñëw ci li nga xam ne ni ñoom la tuddee les quatre bad boys de l'arène muy ñi nga xam ne mooy Boy Seye Balla Diouf Bathie Seras bés ki nga xam ne ni mooy Zos ñooñ nekkoon ay ay mbër yoo xam ne marqué nañu lamb Sénégal mu ne tey la arène bi perte nañu mel noonu. waaw ñooñu day bu dee Zos la Balla booy Seye ak Bathie moom defe naa ne. sunu làmb tey bu ñëwee nag ñeenti bat booy yoo xam ne làmb ji ñàkk na leen mm-hmm. waaw loolu moom wax dëgg yàlla ku ne xam ne ni ñeenti ñu mu limb ci seen carrière naa ne yëngal nañu làmb ji bu baax a baax a baax ndax ku ne yaa ngi fàttale ko tournoi Kalafu Gaston Mbengue su ma jub ñoon ñi ñoom ñeenti ñi bokkoon nañu même pool bi yaa ngi dégg muy ay mbër yoo xam ne réyuñu woon lool gudduñu woon lool mais yaakaar naa ne képp ku ñu mës a bés moom li nga xam ne am na bés waaw jos ci côté soo bi signature contrat yi bu ñëwee arène war a tuus yooyu yëpp nekkoon lu ñuy daan xaar ci moom ak ay kàllaamaam yaa ngi dégg Balla Diouf tamit nekkoon mbër boo xam ne ci bu jafee bi ak yàgg bi ba ñu demoon sax ba di ko woy Cœur de Lion du sonn ku ne yaa ngi fàttaliku digganteem ak Boy Sey Boy Sey moomu tamit dafa naa ne phénomène ci wàllu technicité ci bëri am lu baree bare la ko ci yàlla ma bàj seeraas ka zalike moom bañ ko doon woy le magicien ndax lan ndax façon technique yi mu doon génne di ko utiliser ni mu doon def yaramam ci làmb pour nga gisaan mbër bu ko mën a def euh, da ngay sax koy wëri kon mu mel ni ñoom ñeent ñooñu gudd ñoon réyu ñoon mais ñi ñu maasé loon jamono yabuñu leen par rapport ak seen jom seen fóol ak seen fayda ak seen man li ñuy def àddina nag moo tëddadoon ay sa lu xew day xew wi ku fi mas a nekk di nga fi jóge waaye lam solo daal mooy ñu ngi leen di nuyu ku ci ne fa nga nekk rek di ñaanal bàcc bi nga xam ne xaw na wéra di fan yi yàlla na yëkkatiwaat ku ci nekk tey yaa ngi ci leneen yàlla leen yàlla dimbali daal ba li ñu def seen carrière mu rafet li des ci seen dund yàlla na gën a rafet noonu barke yonent bi sallallahu alayhi Amin Babacar dañuy jógee foofu dem seet ki nga xam ne nii mooy Lac Rose Lac Rose nag eh, géej si lamb ak eh, ay géej am victoire géej def prestation boo xam ne moom lañ ko xamee woon ci début carrière su làmb lamb nee nag tey ginnaaw bi nga xam ne ne Lac Rose faju na ah mi ngi si ay préparation yeneen est-ce que tey Lac Rose mun na dellu si si lamb ah mu nekk loo xam ne mooy dernière chance am loo xam ne fa lay carrière am que tey ku ne xam na ne ci ay blessure la nekkoon ba ay combat yu bëri yu mu ñàkk defe naa ne ñu wax nañ ne bu nekkoonte ne wér na ci li nit doon wax du ko ñàkkee ni mu ko ñàkkee yàlla dogal nag xëy na waa écrim bi ñu xamee loolu ñu jóg ci pour faj ko mu wér jox ak boole ko ay spécialiste comme nag jàpp bi am na te kon mu ngi waajat ngir ñëw ah mën na nekk dernière chance waaye li am solo mooy wér gi ba pare wér gi moom su xasee am pour mam dutul su dutul dernière chance parce que sport ngay def tamit nekkul ne boo ñëwee nga koy gagné parce que li ngay bëgg lay bëgg rek mais li am solo na nga faju ba moom pour man li ci des mbiru suñu borom la ak yow sa volonté bopp yaa kon nag defe naa moom nag mbër la boo xam ne képp kuñ na lacrosse di nga xam ne am na mbër bu am volonté am na audace ñeme na te mën naa bëri kon li ci des mooy su wéree yaakaar naa ne moom ci boppam dina jëlaatal ci ay loxoom antamaat leneen lu bees ngir mën a teg ne dem fañ ko doon xaare mhm. ñu dem seeti ki nga xam ne tamit euh, mooy mobile mobile nag euh, nekk ca Grand Yoff mbooloo mobile nag ñu gis ko si tournoi TFP bi fi ñu ko doon xaar ñëwee fa mu nekk benn désillusion la ko suñu lamb tuddee muy laaj ndax buy dellu si dina ñëw par la grande porte. waaw mooy li ci moom de parce que euh, TFP boobu bi mu ci bokkee. bokkoon na ci ñi nga xam ne joxoon nañ leen favori moom mobile parce que macha allah kenn du maanaam kenn du laajte bokku si naan ana mbër ma kon yaakaar naa loolu lépp na mu ngi woon ci moom mais nag sport moo am nu mu tëddee waaw des fois nga ñëw ci benn tournoi wala nangam sangam ñu ne la yaay favori bi nga mujj outsider yi indi la ay jafe-jafe kon defe naa ne comme moom tamit foofa lam fa lañ ko doon xaare wane wu ko ah pour mu ñëwaat ci grande porte bi jaar ci buntu mag bi nag loolu liggéey ko koy mayaata parce que xale la te itam yaakaar naa ne am na lu bare bare lu ko dese ci carrière làmbam bi mu war a def kon defe naa na liggéeyaat rek bu liggéey ànd ak ñu mu war a àndal xool la ko xañoon mu liggéey ci ngir ñëwaat bu dikkee xëy na mën na dikkaat te bu ñëw mën na indaale ay ndam waaw dañuy jógee ci ñoom euh, mobile ak Lac Rose dem si ki nga xam ne ni mooy Mbaye Jacques Diop Mbaye Jacques nag daal di ñëw di wax ci li nga xam ne ni mooy départ Alioune Sarr bi ñuy wax boobu léegi di wax ci coowul arbitre yi nga xam ne dañ leen rajee woon mu doon ñëw nag di wax ni Matar Ba nag moom lu ci mënti am rek dina jël li nga xam ne ni mooy décision yi ci war buñ ci tolloo waaw parce que moom de moom mooy kilifa gi moom lañ jëngi suur yi moom moom moo ko war a jël waaye coow li daal bëri na nekk nii moom boo dékkee fukki nit micro juróom-ñett yëpp lañ lay wax moom Alioune Sarr na dem na dem yaa ngi dégg loolu nag bëri na actuellement yaakaar naa nag mbir moom mu ngi ci mën a doon dem bi ak toog bi li may daan wax rek laa ciy continuer di wax maanaam na nekk lu luy jig làmb rek ak luy arrangé làmb parce que làmb ji suñu sport national la nañu xool niñ koy defar ba nga xam ne nii maanaam buñ jógee ci coow lii kuy ñëwaat parce que Alioune Sarr moom xam naa ne ak lu mënta xew yaakaar naa ci suma xel mu gàtt kan yi ci li ma xalaat mooy bu fi dee toog dootu fi yàgg ëllëg nag ñaan nañ yàlla kii ñëw yàlla na def lu raw li Alioune Sarr defoon parce que tamit entente yi bëri na coow li ci làmb ji bëri na ci côté promoteur yi par rapport ak arène nationale bi coow laa ngi fi mbirum arbitre yaa ngi fi lutteur en activité yi seen maanaam problème yi bëri na ba nga xam ne ni Aïssa moom ah kon daal kii ñëw moom ñu ngi ko ñaanal yàlla bu ñëwee mu mën réussir affaire parce que dina jafe dina metti trop ci moom waaw dañuy jógee suñu lamb dem ci record fekk fa nga xam ne ni mooy Boy Kaïré Boy Kaïré nag nekkoon fi mbër ba daal di retraité moom nag ñëw na ci li nga xam ne mooy 45 ans yi parce que ne na daal képp ku sentir ni war ngaa mën a bëre rek dañ la war a bàyyi nga bëre. waaw ku sentir na dañu da nga war a bëre waaw dañu a bàyyi nga bëre loolu moom Aïssa loolu loolu loolu yombul do parce que dama jàpp ne maanaam. ku sentir mais day dëppoog yow âge bi nga war a am ci sport bi nga am nga nga toll ci mais xam nga tey bu ne la 45 ans nga ëppal 45 ans même boo ko sentir duñ que yoon wi lii la defe naa ne kay li ñu war a xam mooy yow âge de bi moom boo ci yegg lu mën a xew moom da ngay bàyyi moo xam man nga moo xam mën a tóo yaa ngi dégg mais nag li am solo mooy sport individuel métti na benn xeetu métti boo xam ne nii moom ku ci nekk ku ne di ko def ah yaakaar naa wara nga fexe fexe ba yow lépp looy def lu mu mënta doon nga xam ko xam la nga mën ak la nga mënul parce que olof ne bopp du yenu bët du yenu waaye xam ne la bopp attan yaa ngi dégg Aïssa kon nag li am solo mooy ñi ñi nga xam ne ñu ngi pratiquer jàpp naa ne aptu nañ pour pratiquer waaye nag ku ëppal 45 ans moom ak lu mën a xew moom da ngay bàyyi moom waaw. dañuy dem euh, ci raay ba ginnaaw dem mi nga xam ne mooy Tidiane Diécko moo joxe ay affiche am te raay ba ñëw na ak ay affiche daal di wax ki nga xam ne ni mooy Modou Lo Ama Baldé Balla Gaye B52 Tapha ak Lac de Guiers yeneen affiche waaw yu neex kay moom kay baraay la mu wax xam raay connaisseur la mu koy nuyu série filo ah maa nuyu du nuyu waa Mbour yëpp defe naa ne moom itam bu waxee joxee affiche rek ama Moodu moom yàlla dogal na mën nañ ne taxaw na donte li ci am am na ci ñu bu ko ko tëgg mu génnaat bu dee Lac de Guiers la ak Bal Bal ak Bombardier itam defe naa foofu ramas war na fa mën a am muy lu neex a neex a neex Lac de Guiers Tapha Tine itam ramas la kon daay raay moom la mu koy joxe ay sa ku ko am ci affiche da nga am affiche yu baax a baax waaw leneen loo xam ne ta Babacar record ñëw na ci muy euh, ki nga xam ne mooy Reug Reug ginnaaw bi nga xam ne def na quatre ans euh, quatre saisons laa mën a wax sax ci li nga xam ne ni mooy lutte simple bi ren lay doog a def li nga xam ne ni mooy saison blanche. waaw saison blanche ci lutte simple muy lu guléet parce que boo xoolee depuis 2015 ba tey Reug Reug defe naa ne amul at bu mu bëreewul ci lutte simple bi ah ren nag ku ne xam ne ne. jóge woon na fi dem États-Unis di préparer combat MMA ñibbisi bëri ga gagné benn fi Sénégal waroon na dem jongante jiwaat beneen Suisse nekkatu ci préparation ci mois de mars la ko waroon jongante ji yàlla def coronavirus bi ñëw mu far yooyu yëpp arrêté yàlla def tamit ci diggante boobu lépp arrêté ba tax jutul woon a wàcc ci lit avec ci lit sans frappe bi loolu nag moo lay wan ne que daal mbir yi noonu lay tëddee quoi li ngay bëgg ak li ngay séntu li ngay nam ak li ngay mébét yàlla moom indi la muy dogal ndax jàmm bi mébétam la am ak i ñaanam dogal nag sunu borom bi moo koy jël muy loo xam ne itam euh, defe naa ne Reug Reug ci lit simple nit ci moom ba tey waaw nit ñi moom doyalaguñ ci ñoom mais lii moom xam naa ne guléet la loolu nag mooy àddina waaw loolu mooy àddina waaw euh, Babacar euh, ñuy daal di jeexal fekk nga xam ne mooy Leewtoo TV ak euh, Lac de Guiers moom nag ñëw na daal di fëgg dënnam nee na lépp lu ñuy wër ci mbër mi ngi ci moom te mbëri fi nekk yëpp presque moom moo leen mën. <laughs> Lac de loolu la wax kera xam nga nag lu xew waaye daal fi mu ne daal génn génn bu dis na ci Leewtoo TV mu daal ne mbër yi lu ñuy wër ci ñoom ñoom ñëpp boo leen dajalee moo leen dàq bëri loolu ay waxam la de waaye ay sa làmb nag baaxoon na noonu maa dàq bëri maa man waaye mbir moo xam ne fu muy leere ci géew ba moom nag am na loo xam ne nees na ko wax ci moom te ñëpp constaté nañ ko mbir mu jafe bëri la mu jafee daan daan ko mu xam naa ne lu jafe ja boo xoolee ci carrière am bëriwul ay défaite Eumeu Sène ko daan ah ak Modou te Modou Lo su par avertissement la ko gañ mooy seen combat bu mucc kon yaakaar naa ni itam bëreeg moom daan ko jafe na lool waaye nag ah am nay revanche yu mu war a joxe am nay combat jànq yu mu war a bëree waaw nañu yoon yàgg nag waaw dañoo ni yàgg rek <laughs> daal di <laughs> jaaree boobu lañ leen di tàggoo di képp koo xam ne ni yaa ngi bëgg Leewtoo TV di suivre Leewtoo TV ak foo mu ci nekk di jaale ki nga xam ne mooy euh, Binta Binta Gueye di xaritu euh, Nogoy sama rak Binta daal di ñàkk li nga xam ne ni mooy frère ñu koy ñaanal euh, fi mu fi mu jëm gënal ko foofu fi mu jóge suuf oyof ci kawam te firdaw si di doon këram waaye yàlla na ko yàlla yërëm ah. di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun rek àddina tëddee noonu kullu nafsin saayiqatin mawtin fa kullu man alayha faani loolu waxi suñu borom te du dañ ku juddu da nga lu tooy da nga wow maanaam kenn nekku fi éternellement ñii dem ñàkku ñu fulla fi desit

tamit Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm rek ay sa xam nga du mën a di wax que ki nga xam ne nii tamit moom mooy Moussa Niang sa borom kër yow li tax takkuma masque ay sa fay la parce que moomu diggoon ay masque ne yaa ko koy jox te ba tey jotuma ci masque yi kon Mohamed ay sa buy ñëw. Ah, wax day leer de diggeewuma benn masque wax day leer diggeewuma masque dama la dinaa wax sa yóbbante buñ ma ko joxee dinaa la ko andil ah. wax day leer. laamin du lekk boromam te ñëwul de. mais kon wax nga yóbbante ba. kon Mohamed maa ngi xaar masque yi lundi wala mardi quoi di ñaan Sénégal daal Aïssa yàlla na fi yàlla def jàmm et tamit di wax sama morom yi xale yi Aïssa nañ dellusiwaat à la raison dikkaat wàccaat parce que xam nga li ñuy gis fan yi ci internet bi ëpp na sa ku ne mën ngaa def li ngay def waaye nag ku ne am nga droit suturaal sa bopp te ku suturaal sa bopp yàlla suturaal la mais nit du ñàkkee ker sa boppam mais du ñàkkee ker sa tamit ay doomu moroom yi doomu aadamam looy def lu ne parce que ku ne am nga looy def ñun ñëpp a yem di nuyu ñëpp di ñaanal ñëpp di ñaanal tamit sama waa ji rek du ma jóg ci di ko ñaanal léegi chaque jour ma ñaanal ko yàlla na ko yàlla may soxna su baax waaw su murite ndax moom xam nga taalibe Cheikh Béthio la te góor yàlla la kon faw moom sa soxna su baax daal waaw.